Si la grandeur du dessin, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mahomet ah, la fa ngay jëm sori na te la nga war tuuti na diggante bu gàtt nii ku fi mën a réaliser lu day ni li mu réaliser nee na jàmbaar piira ngoo ko ndax moo nekk en même temps philosophe orateur apôtre législateur guerrier conséquent euh, conquérant d'idées restaurateur de dogmes rationnels, d'un culte sans image, n'est que fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel voilà Mahomet à tous les échelons où l'on mesure la grandeur de euh, la grandeur humaine quel homme fut plus grand pour ni magna. ku ko nag ci wàllu yonent bi xam ni kenn gënu ko màgg ci fii ñu nekk mu mel ni kon nag la loolu di rëy rëy nit ñi di ko sow sow sow li gën a yéeme moo di yonent bi masul nanga leneen lu dul nekk abdallahi wa rasula loo ko mën a takkal ci garab mu ni la duma leneen jaamu yàlla la yonentam la boobu modestie nag la kenn xamul fu mu ko jële waaye booba dafa xam ni lu dul yàlla neen la te it manul nek lenn ci kaw suuf te du la mu nek ba ko ca gënal mooy yàlla teg ko loxo te it yàlla ko wax lu tax mu gëm ni foofu rek la teraangam nekk te mooy yaa ayuha nabi xasbuka allah waaw yàllaa ko ni yow muhammad mu xool ko mu ni ko bu la kenn doy na la yàlla rek doy moom it ca la jàpp génnatu ca ba tey jii ku ni muhammad doomi ibnu abdillah waaye rasulullah ngay wax mu mel ni nag moom yonent bi dafa wax wax bu neex nee na loo gis nitam la am waaye yàlla yiw yi mu baax la yëpp yëpp ay nitam la am mu ni te suuf di bekkoore ba soxla ndox bu ko dundal noonu la nit ñi ci kaw suufit di bekkoore ci yàlla ba soxla nitu yàlla bu leen dundal yonent bi nag nee na yàlla nee na suuf yi nit yi bokkoor ci wàllu yàlla yépp yàlla xam na fa ñu ne nee na ku ci nekk nit ka jagal say mbir dana la yónni ca ñoom tax kon nag ku yebu waat ni fekk àdduna bi am am ñooy man di joxañ ni ñii di nit yàlla piir lañu Seydina Omar ibnul Xattaab nag wax ca wax bu doy waar nee na yàllaa ngeeg jaam yoo xam ni duñu ay yonent duñu ay martir te ëllëg ca kanamu yàlla yonent yi dina leen ñee martir yi dinañ leen ñee ndax fa ñuy yegg ca yàlla lañ doonul xam ni ndeke am na ku fa yegg ñeneen ñu dul ñoom bi ko yonent bi waxee dañu ko ñaan ñoom saxaaba yi ni ko ndax doo ñu wax ñooy ñan ak luy seen melokaan ak lu ñuy def ndax fu ñu leen gis sopp leen yonent bi nii leen gis nga yomb dañoo xam mu ni foo fekk ñu soppante te yàlla rekk tax deret boolewu leen alal boolewu leen ñu soppante te cofeel ga yëpp yàllay kese la nee na foo fekk ñu mel noona bu ñu la raw boole caag nee na la nga leen di ràññetle boo leen séenee rek xam ni ñii leer a ngi ci ñoom kanam ya leer la ku leen gis taxe nday jor ya leer la lu ñu laal mu taxe fu ñu toog it leer a fa bóof ku fa dem taxe ñu ni ko ak ban mu ni mooy ña nga xam ni bu ñëpp tiitee ñoom lañuy xalaat am na koo xam ni bu fit yëpp tëbee am na ku ñu naan ñëw bu ñëwul dara du sotti nee na am na ña nga xam ni bu nit ñëpp nekkee ci tiis bu ñu leen gisee fàtte tiis wa ñu ni Ali ibn Abi Talib wokk ñu way ñooy ñan mu ni gaañ ñi bariwuñu mu ni mayu yàlla piir xàmmee yàlla piir moo lay may nga dajeeg ñoom mu ni ndax li nga leen di xame mooy borom borom pal ak borom alal du leen ñeme ndax fu ñu leen fekk toroxal leen mu ni mooy ña nga xam ni yarama leen diisal ci kaw suuf ndax bis bu nekk seen ruux nga ak almala al aala di sottanteeg ñoom mu ni booy seet ñu wuutu yàlla ci kaw suuf mooy ñooñu ñoo ñooy loxo nday jooru yàlla ci kaw suuf kon nag ah shawqan ila ru'yatihim ali ibnu abi talib de mu naan ay waay aka neexoon fu ñu ne ma fekk leen fa ñu ni yàlla nag ñooñu ñooy ñan muy ulaika awliyaullah الا ان اولياء الله انك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الولي الولي مويكن يعني من والى الله بالطاعه فولاه بالرضا والكرامه يعني ولي مويكو خمي بيالا جوخنيك مومبليج جنقل جوخنيو يالا yàlla nag nee na képp ku ma yëg ni la ma joxañ ak yow génn goo lu ma am sa teraanga ku la teralul it teral naa la yàlla nag nee na ñooñu seen àdduna mbég la seen àllaaxira mbég la nee na ku bëgg jariñu nag bu ñu la raw mu mel ni Nek wali ñaari mbir la ki juddu rek di wali dafa am ak ku judduwul di wali tañ yene nek waliyu moo bis buñu bëgge bokk programme rek am ku gañu am na koo xam ni ba muy nàmp la yëg ne waliyu la yow mi topp téere yi nag di jàng ko jàngat di jàng tasawuf xamaguloo lu xew bëgg ni da bëgg nekk waliyu boo bëggee topp ka ca nam bu ngeen bokkee programme rek nga yàqu waaye bu fekkee ne du boobu nag pour nga nekk waliyu fokk nga dem ba yëg ni yàlla li mu bind yónnee ko muy diine di sharia attestation ya nga ca war a am yëpp am nga ko ba noppi ba yëg ni diine doxatul sa digganteeg yàlla xamula ne am na ñoo xam ni diine doxatul seen digganteeg yàlla am na koo xam ni bu amee jotu julli julli bu amatul jot ba nag dem ndax ya muy defal yàlla yëpp bu ca nekk ëpp julli waaye ci ku ko dégg nag du ko jóg rek ni ca laa bokk affaire la waaw ah. am na ku la romb nga ni ko diw doo julli te bu yóbbuwul sa julli kenn du ko nangu kooku bokk leen affaire waaw ah. parce que ki nga xam ne bi ngay julli mu ngay dem ca kaw ca almala al aala di toppatoo courrier yi di seet ndax yi mu déposé ci suuf ci suba egg na ci ngoon ngem déet gis nga kii waaw waaw di seet ndax courrier bi dugg na biir cabinet wala déet ak ndax signature ba dal na ca parce que cabinet ba yonent ba fa nekk c'est le chef de cabinet may préparer courrier yépp lu mu ci lu mu ci d'accord ak wara d'accord ak yàlla def ci avis favorable ñu duggal ci bir hadratul ghaib duggal ko ci bir hadratul lahut ak hadratul haahut ñu dóor ci signature ya bi bi yëfu jàmbur la bu ko defee nag boo yeggul ci boobu martaba lu dul danga ko bëgg sonn dafa am ay étape yoo xam ni boo franchirul étape yi rek baye boo nga dem sa kër toog mu mel ni yàlla dafa am ñu koy bëri ci bëri làmb ji ñu koy bëree mooy xol mooy titre championnat bi a yàlla mooy titre championnat bi nga xam ni moom lañu ñu war a compétir champ bi ñu ko war a xëccoo nag mooy xol ñi nga xam ni nag ñoo ko bëgg a kii nit lañ koy wax kii seytaane la tudd ñaan ñi ñooy xëccoo titre bi ku ne am nga complice ci biir làmb ji nit xelay complice ci biir làmb ji seytaane bakkan mooy complice ci biir làmb ji yàlla nag nee na mooy arbitre moo tax baatu pas-pas bari na ku ni pas-pas te déggoo pas-pas ndax pas-pas benn cat du ko def benn laf du ko def ñaaray daje bu ñaar dajewul Ken du fas te buñu fasul pas-pas amul kon nak fokk xol ak xel ngay mëna boole seen ñaari la ñul nax yàlla di ko nax ba yàlla dugg si ci seen biir ñu ànd fasu bis bu yàlla nangoo ba dugg ci biir diggante xol ak xel ñu fas ko jeex na yàlla nee na lu borom narati mën a ndax bu boobaa yàlla dina boole fas-fas ba mu génn xol gane ji bu gane je roh dina dem ba yek ni ke roh khatna yàlla ni ko fofu dafa xat tee ngaa gane ji asir yonent bi dug ci bir al biir alxaqiqatul muhammadiya bu al muhammadiyya deme ba khat ci mom ni ko tee ngaa dand si bok ñëwal ci aynu sir asirrul mutalsam dugg an nuurul mutalsam dugg lu borom joxañ yàlla yàllaay dagg yàlla nag nee na commerce la nangu naa bénéfice ah waaye nanguwuma riba yàlla commerce la nangu na ci bénéfice mais nangu wu ci riba nee na commerce bi nag marchandise bi ko bu la kenn nax yiwu yàlla la tudd nee na capital bi itam bi nekk fond de commerce bi ixlaas la tudd sellal waaw ku marchandé yiwu yàlla sellal di ci sa fond de commerce bis bu bénéfice dikkee nga békk te dañu wax ni man saxa batinuhu bil muraqabati wal ixlaas zayyana bi zahirahu bil jalali wal jamal am na koo seen di ko tàccu tàccu woo ko ndax du la nga gis la la tàccu loo leneen la yàlla nee na la mu rafetal ca biiram loolu la xool moo tax mënatuma ko muñ foog ma feeñal ko ci bitéem loo ko bañ bañ boo ko séenee muuñ loo doyati doyati boo ko séenee ni ret moom la Cheikh Alxaaji Omarul Fuuti moom ma ko mos ba xam ko nee naa duñu gaañe de gaañe it duñu ñun te du tere ñuy gaaña waaye nee na ku mën a nangu plante lu ne sax ca raisin sax tàndarma sax limon sax orange sax lu ne sax ci biir dër bi te ndox mi leen rosé di benn te booy wut si am na bu la ca gënal nee na nitu yàlla it noonu la ñu mel ñoom ñëpp ci yàlla la ñu tibb waaye am na ca ko xam ne bu génnee ñu fàtte ñu ca des lenn lay bañ foog ma nekk nitu yàlla tey parce que am naa pexeem yàlla nee na pexe du maye nitu yàlla bi idnillahi rek lañ koy amee ñu ko ak ban mu nit toog ca taatu garab ga eh yàlla baax na mooy may rek dana ma ko may nee koo dégg mu di ko wax xamal ni léegi ñu sànni ko doon nee na képpit koo xam ni nekk gi da nga koo teg ci diwa ma jur ak diwa ma jur am na koo xam ni muy nitu yàlla jur la fa mu jaar ba nekk nitu yàlla boo ko defulit ñëpp tane la nee na ku ko bëgg a tegit ci roy waxuma sax roy du roy roy baax na wucce waaw sëriñ Cheikh nee na roy moo defar àdduna wujje moo yàq àdduna te ñoo nuroo mbubb waaw roy moo defar àdduna wujje moo yàq àdduna te ñoo nuroo mbubb waaye képp ku bëgg a nekk nag nitu yàlla ci ni damay wujjeek ñoom mbubb mu ñu sol ma sol ko dàll bu ñu sol ma sol ko mbooloo mu ñu wut ma wut ko dina am fu ngeen yegg kooka dem yow nga taxaw ne ne képp ku bëgg a nekk nitu yàlla ci wàcce sa bopp ku ne nga ni ko kaay war ma na bëgg ku la ni yaa woyof am na ku war a woyof te diis gan na dana woyof ndax mën a yóbbu jaamu yàlla yi waaye dana diis gan na kenn du ko yóbbu moo tax ku xamoo xàmmeewul nag awliyaullah ak awliyaul sheytaan ñu nax la yàlla nee na ni ma amee ay wali ci kaw suuf noonu la sheytaane amee ay wali kon bu leen kenn nax moo tax abu yazid al ci nitu yàlla yu mag yi la bokk nee bu ngeen gisoon nit it muy naaw ci jaww ji di wane ay xar baax بولين وولوغوم نا خار باخ شيطان تاخ من نكو تا من نكو ديفاليت اي نيتام وايي نينا بالا نين كوي جاب لومو ورا دون يوبولين كو تي ميزان الشريعه والحقيقه تكو ريك بلاطو يي دونيو سوتانتي شريعه بي ديكو ديفان حقيقه بي بو امي ريك بوم راو إذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد وأينك وأين ذاك الواحد كي تد تدون نلو مك ديكو خلات لي جولي فور فور بوي جولي داولا راكي نح أنا ني كوكا بومولا راو فاي أنا كوكا كوكا أنغفا كوكا لتروندم وحني وكل ما قلته لكم فزنوه بميزان الحق بميزان الكتاب بميزان السنة إن وافق كان ذلك الأمر وإلا فاتركوه شيخنا التيجاني شريف لأن يين يمجم luma len jox bala ngeen ko def yob len ko ci balance sharia ak haqiq bo balancer wu rek wàcc len pour wax la ni la lum la wax rek ayatun min ayati allah gor gu tedd ga cheikh alhaaj malik Nenek budé bala nga nek bour am pale am garde d' accord doo buur kër yàlla fa nekké bour nene mandou tay sa pale jikko ju rafet ak yiw yàllaay sa garde me. du la am na ku sañu la doxi soxla te garde wóoru ko am na koo xam ni nag bis bu bëggee doxi soxla moom dong ngay génn te bu nit ñi yëgoon ni génn na it asamaan seeg suuf si yëpp ànd di ko wër moo tax làqatoo koy jig mais boo làqatuwul dootul doxi soxla moo tax Cheikh Ahmad Tijani Chérif daan na ko def génn rek di doxantu mujj gi sultaan bay yónnee garde yu ko débarrassé ci nit ñi ndax dootuñu ko may jàmm dootul faf dem ndax di ko raay ak di barkellu ci moom kooka nag am na ku ko donn fii